dal leen ak ci AGT news chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg ñun ci AGT news dal leen ak jàmm euh, benn waxtaan bu ndaw buñ bëggoon seq rek par rapport ak combat royal bi nga xam ni ma war a am tey jile diggante Modou Lo ak ki nga xam ni moom moo di Siteu muy combat bu am enjeu nda ku daan yaay doon roi des arènes muy nag loo xam ne sénégalais yëpp dañ koy teewlu ñu ci bëri dañ ko suivre mu nar doon nag bés boo xam ne itam dina am ay mouvement dina am ay yëngu-yëngu yu bëri yoo xam ne mën na cee am waaye saa su nekk comme ni ñuy faral di ko defee bu combat amee dañuy seq waxtaan ak sénégalais yi interpeller leen bàyyi loo leen xel lu bëree bari waaye gën a interpeller ki nga xam ne mooy le ministre de la justice di Jean Baptiste Tine. dañuy faral di nemmeeku que ne combat bu amee violence day bëri lool agression yi itam sénégalais dañ koy subir te muy nag lu mënoon a ñàkk ndax saa su nekk sénégalais yi doon ay amateuru lamb dañuy bëgg di dem teewlu ji ñi nga xam ne itam ñoo dëkkee ci boore boobu le bu combat amee rek dañuy nekk ci ay jafe-jafe te muy nag loo xam ni saa su nekk da leen di jural coono ak njàqare boo xam ni xamuñ fan lañ koy waxee xamuñ itam fan lañu koy jooyee. lu ni mel nag moo waral ñuy gën a sàkku ci ministre bi nga xam ne moom lañ dékk lépp lu ñeel kaaraangey biir réew mi mu gën a ñoŋal sécurité bi nga xam ne gis nañ ne pour le moment na ci lu bëree bëri teg na ci ay jéego yu am solo waaye luñ ko gën a mën a yaatal luñ ko gën a mën a élargir rek dina baax ngir renforcer kaaraangey sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy dem di setaan yi ak itam ñi nga xam ne dañuy nekk aux alentours di dox seen i soxla te souvent ñu leen di agressé seen i alal ñu ko ciy ñàkk beneen mbir moo xam ne war nañ ko fàttali ñi nga xam ni ñoo di supporters yi mooy ne sport fair play daf cee war a njiitu mën ngaa mën nañu laa daan mën ngaa gagné mën ngaa perte waaye lu ci mënti am rek ñu xam ni c'est le Sénégal qui gañ muy Modou Lo muy Siteu comme ci mënti doon rek doomu Sénégal la te ndam li du mës a génn biir réew mi kon luñ ci def lu baax rek moom moo gën foofu di ci dugal loo xam ne ëllëg mën naa am ay regret wala jural ay sénégalais lorange goo xam ni du ñu xam fan lañu koy waxee te itam mën na leen topp ba faw kon nag ministre bi nga xam ni moo di Jean Baptiste Tine comme ni ñuy faral di ko defee saa su nekk ñu ngi koy interpeller encore une fois ci lépp loo xam ne dafa ñeel kaaraange luñ ko gën a mën a ñoŋal mooy gën fuuf pour sénégalais yi nga xam ne dañ dem foofe ca stade ba ak itam ñi nga xam ni seen yoon nekku ci dañuy doxi seen i soxla nekk ci seen ay yitte léeg ñu leen di agressé di jël seeni i alal ba sax souvent mën nañ leen teg loo xam ne loraange la seen i njaboot dong ñoo ciy mujjee sonn beneen mbir itam boo xam ne ñoom waa CNG bu ñuy faral di ko def respecté ko itam dina permettre yenn agression yi gën a mën a wàññeeku ndax dina tax combat yi ñu koy teel a bëri muy teel di jeex maanaam mbër yi ñu convoqué ca làmba ja ñoom ñooñu ñëpp war a sëgg ku ci nekk dañ la jox heure boo xam ni mooy doon sa combat nga respecté ko quel que soit xar fa xuufa boo xam ne da ko fay mënti indi heure boobu bu jotee nañu sifflé combat bi sinon mu am ay daan yu méttee méttee métti yoo xam ni day tegu ci sa kaw ba ëllëg doo ko defati tey itam ñu am ci ñoom seen fulla ak seen fayda ba benn heure bi bu rombee ñu jox victoire ki nga xam ni moo di sa adversaire bu ko defee ñëpp ñibbi tasaaroo te boobaa dina servir de leçon ci mbër mi servir de leçon itam ci keneen koo xam ne yaa ngi doon envisager def lu ni mel tout simplement parce que mbirum mystique moom nga jiital que mbirum combat bi nga xam ne moom nga war a bëree def ci coono bi ci war ngir daal di koy mën a gagné kon nag mbir maa ngi noonu que le meilleur gagne muy Modou Lo muy ki nga xam ne moo di Siteu kum ci mën ci doon rek yàlla na ci suñu borom def jàmm ak salaam ñu bëri ko ñibbiwaat ci seen ay kër ba benn sénégalais du ci ci mës waaye ki nga xam ni moo di Jean Baptiste itam ñu ngi koy ñaan mu def ci kéemtalaay kattanam ba lépp loo xam ne sécurité la sénégalais yi am ko dem ñëwaat ci jàmm kenn du ci jëlee loraange ndax loolee di làmb sport la te sport nag lu ñuy ñoŋal la te itam dafa bokk ci suñu culture te loole kenn mënu koo dindi ci réewum Sénégal ndax am réew da ngay gën a ñoŋal sa li nga xam ni mooy say aada ak say cosaan te loolu nag président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le PM Ousmane Sonko ñi ngi ciy dox te Jean Baptiste Tine seen ndaw la ñu yebal ko am lu ñu ko dénk mu war dox ay jéego yu ama am solo kon sénégalais yi ci loolee nga xam ne épanouissement lañ ci war a jëlee ñu cee am benn yoon loo xam ne loraange lay doon di tegu ci seen kaw kon ñu ngi leen di encouragé ñoom waa ministère de l' di ñaan itam sénégalais yi nar a teewee ci boobu lépp lamb ñu daal di dawal compréhension par rapport ak ñoom seen liggéey jàppale leen ci bañ mën cee am ndam AGT News